bi barkati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam, ak ci weer bi nga xamne moy mooy weeru safar yalla na yalla defal lepp sant nañ leen gërëm nañ leen alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw sunu ami d'enfant la parce que ñun ak mom ak Balla ñoo doon and depuis 2005 lañ commencé won di danse quoi ouais. man mang koy yek demb ay 1 heure la ko yek ci lañ ma woo téléphone.

après déggantewaat nañ dimanche ay vingt heures man ak am benn booy bu dëkk fii boobu lañ gëj a dégg déggante quoi mais gëj naa ko gis depuis dëj sama dëj bi ma amoon fii quoi. dimanche passé. dimanche déggante nañ téléphone mais gëj nañ gisante depuis décès bi ma amoon suñu kër quoi. parce que d'après les témoignages ma déggee voisin war na am avant ñuy découvrir parce que dima parce que bi demee ba approché appartement bi. Uh-huh. Uh-huh. benn xam ne kirim bi bi mu amee. Uh-huh. démb war parce que tey la mercredi su ma juumul. démb la mardi parce que man dimanche su ma lañ déggante boobu maa ngi seetaan max royal bi. après ma génn am lu ma doon jël ci lañ déggante mais après déggaatuma ko mais yaayam dem naa démb seen kër yaayam ne ma Aziz dégguma ko deux jours. ma ne ko léegi xaaral ma insisté woo ko ma woo ko demul ma envoyé ko message liirul ma woo ko appel whatsapp demul ay une ñu tàggee ma ko noonu

mais loolu dëgg la ku rey dana war a rey man pare naa pour dee ci loolu parce que depuis semaine bii ñu passé yëpp suñu waxtaan ci dëj bi day naan ma sàmba dee kenn du ko ragal dee ki ko xamul moo koy ragal lii la ma doon wax li ma dee ku ko xamul moo koy ragal amaana la ngay dundi mën na dàq li ngay vivre fii Malick mën na ma seede parce que fan yi yëpp vidéo yi nu doon tourné clip yi war a génn ñun ñoo ci àndoon du ko travailler quoi oui mais dina yàq lu bëri parce que am na ñuy jóge Touba ñëw parce que moom dafa fonk màggal man ko Touba dara parce que do dem Touba do dem fenn man ko non mun ma dem fenn ba di encaisser ay magalu la wax quoi muy lu metti dafa parce que vainqueur mo dem je te le jure gaynde dem parce que mom boko ko do ko xam barki la parce que mën li tax carrière am exce fini ci fecc parce que mom dafa deuguer bopp te dafa am fit ay temps bu misaan bëgg a fecc benn koñ ñu ñuy tekk su ñun ñu ñëpp né man ko boy té ñoo tok mu ni ma bu fa bu dé dé sax dañ fay fecc parce que damay bañ suba ñu war fa dem ñuy calculer man su ma ko nee non man boy affaire fecc man amatuma temps quoi mu ni ma yow ñëwul man maa la soxla ñëwul kii xamna na lu may wax parce que ki la ëppoon lu ma doon travailler ma ki ñoo ëppoon lu mu doon jox parce que ki tuddee na Aziz doom

am na ñu ma mën a témoin fii xale yu bari fii yu fi taxaw nekk ay jànk am jëkkër fecc seen ngénte ñoo ko fecc ah, man personnellement waa ngay wax ni xam xamna ko baax macha allah. Mhm. donc nekkoon dama moom sen ay poche ko mo ko doon tëj. je sais Balla Balla. voilà Balla donc si li nga xamante mom moy tay piqué. Uh-huh. ñepp ci bàkk leen fit n'est-ce pas. Uh-huh. Uh-huh. est-ce que tay fit bobu également ak xew xew-xew bu am insécurité est-ce que bu xawa a saltel également teew piqué bu nga jeexal ah dinaa ko bu mag insécurité naka lay def bobu rétablir parce que piqué ay ndoobu ñëpp dëkk jeex na tey ñu setal suñu terre en fait. mais bien sûr pap Diouf tout près le dëkk. Pape Diouf bu déggee ñuy wax dara ci image yu pardon booy bu déggee ñuy wax image ci image yu ginnaaw raay dara mais daf koy choqué fii ay ndaanaan ñoo fi dëkk d'ici cinq jours moom mi ngi jooy loolu ni ku rey dañ la war a rey ndekete moom cinq jours moo ko fi jàpp nit rey après génn ci kaso bi néew takkal grade fii kenn ëpp fi fit kenn mhm. man aw man man su may dox guddi sax du ma xam nit amul fit naan da nga may agressé man lolou loolu xalat nako nit amul fit di ma dab parce que loo wo dama la ci wuyu mënoo dëkk fi di ragal dañoo xex ba am suñu indépendance mais dafa amul sens affaire banditisme amul sens ñu fekk ko këram ray ko ray bu ñaaw bobu après justice na def liggéeyam gaay nañ top ba japp len parce que ki dé amalon na yaayam jëri mu néew mu bari day ñëw jox ko

amna ñoo xamante ay at lañ da leen wax ñu la yalla existé wul jif amna fi amna ñu gëmul Muhammad fi bu la ñëpp bëggee nga wara tiit ci sa bopp. dégg la imam bi jité fi ni imam Diop ku baax la amna ñu amna ñu muy déranger ci koñ bi c'est vrai hein? aduna mo tëddee noonu mëno satisfaire ñëpp. dégg la mëno dab ñëpp seen banex imam bi jité fi boko ko amna ko xamni imam bi mu ngi koy romb mu koy déranger est-ce que mën nga satisfaire ñëpp mënu né mëno dab banexu ñëpp.

il faut ñu jug si fii taxawaay bi maanaam dafa war a am sécurité pikin gi yëpp waxuma ginnaaw raay parce que fee yi yaa ngi koy dégg mbeddu Fass Pikine ginnaaw raay yëmbal est-ce que di nga ko dégg ay Sacré-Cœur rek ay Liberté 6 mais amuñu temps boobu mais fii nii ñoom seen esprit ni environnement bi mel noonu la esprit yi mel gis nga kër yi ni mu tegloo ñàng noonu la xel yi doomu aadama yi mel c'est ça il faut gars yi jug def ci seen taxawaay jema a xool ñi def fee bi ñu japp len mhm. ba paré taf seeni photo ci ci ki bi ñepp xamé len parce que ray bi ñaaw na man wër bi ray na ñetti nit ño xam dama doon togo ak ñom dafa metti mom mu genn sorti wax ci genn d'ici 5 jours ñu ray ko man mën na xey suba ñu tàggal ma len mën na xey suba ñu ray ma après fu mi muju teud 4 ans genn di am gratu bandi ay top mom daw rek xawma daw daaw er, ta appartement sàcc ko sàcc alalam ah ñooñu ñooñu nag ñooñu ko defoon loolu man xam naa ne ñoo ko topp ba rey ko parce que nit ñi dañ lay gis yow ngay ngay ngay ngay ngay def